Sénégal lu bon lu ne dañ koy xewal xewal nañu fi ngalañ lan mooy ngalañ doomi xaraami ngalañ xewal nañu fi istati mbaras wax naa ko ca bandi bee xewal ngeen fi de maam lu ne moom daal lu ne xewal ngeen xewal ngeen fi rappaajoo rappaajoo mooy lan rappaajoo kay mburu ak suukar ak soow doy na ci waaye rappaajoo ak ni naa ngalañ de ni naa ngalañ boo dee ngalañ yàlla na nga fa dee ba xam ku koy yëg am benn géwal boo xam ne bii da doon puus ay brouette Farba Ngom ay brouette la doon puus barki demb dama koy wax bul ma kobas bul mak kobas yow Mass Balde war nga xass ken mas Balde maa Touba mas Balde ma tax wax luma la xam mako xed gu mas Mass de eh kan kàpp mas Mass de man daw ma daw ma sayande eh man na ma journal na ma libre presse na bëkk de ma njaay la le amour est fort comme la mort sans compter les pilules voleur au but cœur fidèle. yéen Sénégal lu bon lu ne dañ koy xewal xewal nañu fi ngalañ lan mooy ngalañ doomi xaraami ngalañ xewal nañu fi istati mbaras wax naa ko ca bandi bee xewal ngeen fi dégg maam lu ne moom daal lu ne xewal ngeen xewal ngeen fi rappaajoo rappaajoo mooy lan rappaajoo kay mburuk suukar ak soow doy na ci waaye rappaajoo ak ni naa ngalañ di ni naa ngalañ boo dee ngalañ yàlla na nga fa dee ba xam ku koy yëg. nu mu jëlee gàmmu ji. ku sinap walu ku dugal kan? wara rek ngay dugal kan? warwara warwara Mamadou Mansour ñëpp warwara la ñuy dugal ah man tamit man benen bi laay dugal kan? man benen bi laay dugal man yooyu leen dox mi nga na sama yoon nekk si la dama def grève de la faim ba pare def grève de la soif sama yo nek ci ñaar yeb après dama gaaw a xar bi lay gaaw ngone yow da rew hein waaw da nga xamati ak yow ma rewat barki rasulaay ma. papa dërëm ku la daggal. ki daggal ah, ah, ah, moo la jot pour moo ko ma seen ko ko. booy blaaka booy dama sig booy maa ngi am no ma five malaria booy. booy mënuma puuk mënuma doxot booy. ba pare wi ma booy caa mënuma lekka booy ma di ñaxa di liwu di ñaxa di seera chinois bee ñëw ci aéroport bi ñu ne ko dañ lay enregistré chinois bi énervé wu nee na kenn mënu ko enregistré douanier yi maire ak policier ne ko waxal sa tur dañ lay enregistré mu ne mënu leen ko bind gars yi ne ko waxal sa tur xuloo bi bëgg a jug chinois bi ne leen ok mën ngeen a bind graaw bind leen gars yi jël seen i bitté ak seen i feuille xas seen ne chinois bi noonu chinois bi ne nu mu tëddee gàmmu ji ku sinap wala ku dugal war waraa rek ngay dugal war waraa war wara mamad mansour ñep war wara lañuy dugal ah man tamit man benen bi lay dugal man benen bi lay dugal man yo yo yo yo yo man da ngay wax deug doom adama day wax deug ñu ne doom adama fi pour wax deug lañ ko fi andi man tonda haru man nangu dani poup na de mais mais poup ma ci côté kambi man man dama ci ñu ne nit ñi dañ la dee wax ne da nga ñaaw. waaw mooy gars yi soxor rek. <laughs> ñan ñu soxor loolu di di ma tiim yow man nu ma mel nii nu ma xoolal. Hmm. nu ma naay seen i ba yëg ko. Hmm. man naan naa juus. naa ful. waaye koo gis mu rafet. sol lu rafet. gisoo ni ma di xeeñ lu ne. jëbaleer. boo koy woo ne ko taalibe Cheikh wëy sama ndey kii du ma ko wëyal wëyu njaago eh, damana ramana laayo kaja eh, kaja ka manda eh, ah, wëy yaa ngi may gaañ ci sama xol bi kat doo toog la la yow doo toog ma fa émorit émorit dama koy faj asan naa gi ma dëkk borom kalandoo yi ñëpp émorit ñëpp koo ci laaj sañ njaay xam na ma ma jaañ maa ko fajal émorit doom ba muudu awa maa ko fayal émoritam surtout muudu awa du teggin sama koy wax ci télévision waaye dafa amoon picc bi li naan infection muy picc bi la amoon You're... Bien Danica, franchement, tu vas pas divorcer juste parce que dama am gel. Arrête de te foutre de ma gueule, s'il te plaît. Ah, tu le reconnais Je reconnais quoi, Djali Que danga am gel. Je vais me rectifier. Aïe, gel Bonsoir mon ami. Bonsoir Medoun. Tu vas bien Oui, je bien. Toi, tu bien Moi, je bien. Oui, même moi, je bien. Tu as qui comme adversaire Moi, adversaire, la solution. C'est quoi la solution euh, Il est ndax ngay gis ni dafa baax ci góor de. waaw nijaay dama nekk sama noonu dimbal ma ngir yàlla. de ay waay nag dëkk bi dinañ yaakaar damaa soo defee ni ay chargé. sonn nga di nga sonn. li tax dof nay naan nguur Cissé ngi jël. mani ak Aliya ñoom ñëpp man de man xam man maa leen di fekki man. ku leen di fekk ndayam ku la nax. ba nga laal saa na yaay. laal ko rek ma xal ma xal la yow deewu kañ di nga ko loo doon def nii. fo jele li ji fan diwu kan la diw diwu faatu macha allah sa liggéey rafet na deng waxal waaw Mon père et ma mère sont mes parents. Mon mère et ma soeur sont mes parents. ko jak xamne yeg ak wàcce koy mère. li ngeen di pan kilifa capable coupable top góor ñi sàmm li ngeen yor Ki da la a ki benn doom nga ko ëmb wala ñaar. lu ay seex. ah kon yow yaa ko ëmb. góor bu la suturaal boo ñëwoon sax di ko jox sa bopp day bañ. <laughs> Doon ba? Ang makitin ba ka? Wah, wah, bakit iya, mas bare wanga khas ken mas bare ma tuba mas bada man luma la mako mas bada e eh. kan kapana mas bare man daw ma daw ma sayande e eh.

Vous voyez, ça sert à rien de me critiquer, wesh. Ça rentre dedans et ça sort dans le trou du cul, wesh. Critique encore la prochaine fois, je vais péter dans ta bouche. comme les gars ah. xam genre wax olof non non ak bun. da ñamul ak bun rek. <laughs> Sénégal trop mais a ak fi nak quoi parce que fi dañ ñoo ci man WhatsApp ko mënoo boole wasifaak bind tem ak jàngale ma wut bii xam nga bii mënul whatsapp aloo booy yéex may coupé da ngay dugg ci kër mère baa ngi nii paa baa ngi nii bon baa nga ne boo yaa nga ne kenn tal kenn talul sa bopp ku ne yaa ngi sa téléphone papa ne mu ne kondong mu ne kondong bu ñuy añ sax ñu ngi bës di wax da ngay dugg ci kër kenn talul kenn nii rek papa chéri moi je t'aime sa fili tam mu ne kandang mu ne moi dañuy woor ma yónni sama doom te ma jur ko sama biir bi lu tax mënoo koo sa bopp yow ñamu mbaama nga xam ne dañuy woor seen kel day nekk ci lekk ngay jël kal ñam bi nga jox ko kale bi mu lekk ko ah loolu mooy mbaam la rek mbaam mooy jur mbaam kon yaa ko jur waaw mbaam T'as pété là Au oh, lieu tu me dis que j'ai pété Comment ça, tes souhaits T'as pété, ouais, j'arrête de faire genre à tes mais non, mais j'ai pas pété, bébé Mais n'importe quoi En fait, tu m'as pris pour une crasseuse là J'ai entendu Mais genre, moi je peux péter devant toi Mais si, t'as pété à dire thème, moi je peux péter, genre. tu peux péter gars, là, comme tu me vois là, moi je peux péter Nous, les